keneen ci njaboot gi El Hadj Kenn Mbaye El Hadj maa ngi lay ziar baax. maa ngi lay ziar bu baax El jërëjëf maa ngi lay jaale bu baax ku tedd ki. waaw si gi sawal maa ngi la koy jaale yooyu tam. Mbaye jërëjëf bisimilah. koy jaale waa réew mi yëpp. Mhm. bisimilah. di jaale waa yëpp. di mhm. xalifa bi. Mhm. Eh, Serigne Babacar Sy Mansour. Eh, ko jaale famille bi yëpp. Euh, jaale ko itam kilifa diine yëpp. Mm. Euh, suñu wéyjur wu jënd Cheikh Mahi. Mm. loolu mooy wane rek tabarakallahu dimension Serigne Pape Malick. Mm-hmm. ndax bokkoon na ci niseram dem ziyaare Cheikh Ahmed Tijani Niass. Mm. bu Mambaay. Euh, ku xam ne itam digganteem ak waa Touba ni ci ni amoon ci xarit. boo xam ni sëñ Aliou Mbacke gaynde Fatma loolu ñun ñëpp sëñ Aliou Mbacke radiallahu anhu daf daan ñëw sa ziar général ndax di ànd ak moom ah mu nekk nag euh, lu diis wax dëgg yàlla lu euh, dafa bette wax dëgg yàlla on s'y attendait pas du yàlla nag ومامم سيدي الحاج مالك دابا هاني وكل ما فعل الجليل فهو جميل يلا لومو ديف نانا نونو لا دغلا دا دان واخني كو خامني لو جيل ياكو موم تو نيو كين واي وقت نونو بيت لا واي تب دنج كوي نانغو دغلا ا أه، مو نيكون نك كو خامنتني ا أه، سيرين بابا كير سي رضي الله عنه دا كو سوبو radiyallahu euh, daan na wax sax am naa tàngaay benn chaleur buy nekk ci sama yaram boo xam ni nee na soxna asukan def ko ni fuuf ji la sa sëñ Babacar daan fuuf di fanaanee zikar hmm. moom ko jëlee ba nee na daan na sax ni climatis climatiseur sax a def euh, ku ne xamoon na itam euh, gis-gisam hmm. te yi xew yëpp waxoon mom ba muy wax yi ñëw ak yooyu mhm. wax deug yalla ah ñu won sax ni yi lii ci la bok deug la waye mu nekkon nak ko xamanteni daf lima ma marqué ci mom dafa nangu kilifté bëgg njaboot mhm. ndax top ci ginnaw Serigne Abdul Aziz mhm. top ci ginnaw Serigne Cheikh ba mi Serigne Abdul Aziz ene aduna denk ko njaboot mu ñëw taxaw taxawu leen lu xew mu taxaw man mii di wax ak yow. Hmm. Euh, daaw jéeg deux mille dix huit feebaroon naa fi hôpital Thiès. Hmm. wallahi dafa taal otoom jóge Dakar ba fekk ma fi ma nekk. ndeysaan macha allah. yëkkati lu nekk jox ma ko. Hmm. ñaanal ma. biir koor gi. bi waree lañ mujj déggante. mu mu woo ma di ma nemmeeku. am yu muy wax ak man nga ya. xam ne kon kooku hmm. eh, xeebuloon benn mbindeef hmm, dëgg la dëgg la xeebuloon kenn parce que mënoon hmm. na ni njaboot la waaye kilifa tabarakallah di di xaji mag daf daan wax ni borom saamu jama bu bëggee wéet ko borom saamu buy waaw mu dàmm njëgam dëgg la <laughs> mooy kilifa fu ko yàlla yéegee itam day wàccaat yonent bi li muy for for li mu demee riñaan ba noppi yàlla recevoir ko wàccaatal ci kaw suuf nga jëriñ dindi Cheikh na Tijaan yi li muy foor foor mhm. ba mu ya ba mu ràngoo marati bi moom yi mu ràngoo maamam daf ko yow fa wàccal suuf nga jëriñ dindi mhm. amara nabi imaamana bi tanazuli bi ifadatil axlaqi bil wirdi jëli loolu la si xajmaari ko yonent bi moo digal Cheikh radiallahu anhu ñi ko wàccal ci suuf nga jariñ mbindeef yi ci wérdu salaatul fatiha macha allah kon nga xam ni fu waay toll yëpp hmm. faaw nga wàccaat ci kaw suuf dëgg la njëri jëriñoo mbindeef yi loolu humilité la hmm. euh, modestie la hmm. te yaakaar naa ni ku ci joxe exemple boo gisee maam Dabakh loolu dina doy exemple la dëgg la maa waaw yàlla defoon na loolu moom ñi mu jamonoon teeloon yëpp Dabakh sol na dàllam moo leen magoon. Mhm. xulafaaw yëpp moo leen magoon waaye sol na dàllam seeti leen ngir wane ni rek jullit yëpp benn lañ. dëgg la sëñ loolu daf ko daan def. wax dëgg yàlla toppee ba nii mu nekke li tax mu diis nag mooy moom dong moo fi desoon ci doomi sëñ Babacar yu góor. Mhm. doon xalifa sëñ Babacar. dëgg la dëgg la. yàlla dogal. lii mu ci dogal. dëgg la jërëjëf jërëjëf ah ok jërëjëf El yàlla wanale ko ak maama ñu baax yi. amiin amiin mais li ma koy daaneele rek. nga bay ma. asal dëgg la. sama rak. caat Pamali. ñi nga xam ni moom la ko sam papa tudd. barki semaine passée bi bii semaine bi daf ma daf ma ni man daal Ahmadou dama gént sama ñëw fii ci kanam jumaay sëñ Babacar. nee na ma ni ko. papa ñaanal ñaanal ma gis ñu gis man ñi mm. na mu ñaan nee na benn lumière génn mu gis sama wujur laaji mbay doon alhamdulilah waaxu di ñëw ne sëñ Pax Malick ni ko man sax damay dem juróom-ñetteeli mag ñii damay may wax hmm? wallaahi wa quraan est-ce que léegi la ma rakk woo ni ma man day hmm? grande xanaa li ma ma ni ko gisoon loolu la gisoon macha allah juróom-ñetteeli mag kon nga xam ni ca mag rek bëgguma téye antenne dëgg la dëgg la jërëjëf seede yi am na RTV <coughs> Dakar yen ñi abonné gul abonné leen gaaw ba sali klus notification bi ndax mooy tax ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jëf